tey bés bu màgg la si ñun ñu ubbi suñu kër gi di Assam état bu Sénégal tabaxal ñu ko autour de huit cent millions waaye nag dëgg rek mooy dëgg. fii ak ay fan yu néew jot na ay xibaar ndaxte man ak njiitu président Macky Sall euh, du ñu euh, toog te déggoowuñu euh, jot na ay xibaar ne jël la bépp matuwaay pour que juróomi téeméeri millions yooyu nga xam ne moom la ñu diggoon. yemb na daanaka te dina agsi léegi ci suñu ay gafa bu ko defee ñu mën a taxaw ñu am feebaru xel jëlee leen ci mbedd mi yóbbu leen ci askan bi man Astou Mara Dione lenn rek moo ma soxal mooy ñu am feebaru xel ñu nekk si mbedd mi tas ko di xibaar yi xam nañ ko Sénégalais yi xam nañ ko picc yi naaw sax xam nañ ko moo tax képp ñu si jàppale rek dañu si gërëm di di sant suñu combat bi nag dañ ko yàgg ànd ak monsieur Mballo Thiam ndaxte moom yàlla moo ñu boole ci suñu gisilin ci ni suñu ay doxalin moo tax tey bés bu màgg la ñu jël Siteu bu mbax la Mbathio Thiam def ko suñu gan spécial ñu koy sant ci teewaayam ñu ko gërëm di wax ne kër gi fii ak fii ak ay fan daañu ko euh, daañu ko exploité ubbi nañu ko tey jii waaye daañu ko exploité Sénégalais daañu gis lépp loo xam te ni ñu am feebaru xel en tout cas ñu toppatoo yéen. ñeenti junni nit la ñu am feebaru xel ci réew mi waaye nag kër gi kaw la rek moomu ko. képp am feebu xel ci Kaolack Dakar Thiès Saint-Louis ba ñi si diaspora bi ñi si prison bi ñoom ñëpp ñoo ko bokk xëj na Kaolack mooy nag capitalu ñu amee feebu xel waaye santé bi Kaolack rek moomu ko réew mi yëpp ko moom adduna moo ko moom ndaxte di nga gis ko xam ne faj nañ ko ba mu wér ab Guinéen la wala ab Gambien la wala ci benn nationalité la bokk fii lañ koy fajee ba mu wér ñu delloo ko ci réewam.